warsagal ñu ci ngëneelam ñu dëkk ak ñoom ci këru teraangam am na ku xaccoo ak Xadija ngëneel ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa ba ku mel na alxaafisu zahabi moom ak fi mu yegg ci xam-xam fi mu yegg ci siira nee na tànn féetale ngëneel kenn ci ñaar ñooñu dama ciy taxaw donte nag am naa xag dogu ci yenn mbir yu xam ne xam naa ne Xadija moo ci ëpp ngëneel waaye ci maasale kan ci ñoom ñaar ñu ci ëpp ngëneel dama ciy taxaw kooku moom mooy ki ëpp xam-xam ci mboolem jigéeni xeet bi alxaafis zahabi yegg na sax ci mu ne jàpp naa ne mboolem nisaul alamin moo ci ëpp xam-xam kooku mooy kan mooy ummul muminin alsiddiqa bintu siddiq aisha radiallahu anha yaayu jullit yi soxna su dëggu sa di doomi ku dëggu ka soxna si dëggalaakoon di doomi dëggalaakoon abubakar radiallahu anhu su yaay aïsa radiallahu anha ni ngeen déggee ci muqaddima boobu kon ngëneelam bu ñu amee kuñ koy xëccaleet xadija la waaye bu dul xadija amatul kuñ koy xëccaleet ci jigéeni xeet wi ci ngëneel soxna la su xam ne mu ngi juddu ci atum juróomeel ci yonent gi maanaam fi yàlla yónne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy am juróomi at foofu la suñu yaay Aïcha radiallahu anha juddu mu ngi bokk ci doomi lislaam kon moo tax mu ne xàmmeehuma samay ñaari waajur bi may xàmmee xàmmee xuma leen lu fekk leen ñu ngay diina woo diinay lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na ko ci bi mu amee juróom-benni at gannaaw faatu xadija radiallahu anha moom ak sawda la takkandoor ci benn jamono daldi jabaroo sawda waaye aisa jabaroowu ko ludul gannaaw bi mu amee juróom-ñeenti at te mooy ba mu bàyyi ko ca xare badar ca atum ñaareel ci gàddaay gi Aysa soxna la su xam ne yonente bi sallallahu alayhi na ne yàlla subhaanahu wa taala na ko ko ay yoon bokk na ca yoon yem ko ko wan yoon bu ko Jibril ñëwal ci melokaanu Aysa ne ko kii sa soxna la na ko takk naka noonu wan nañ ko ko ci benn mbaarum suwa mu xam ne moom lañ muuree fi Aïsa nekk ñu ne ko sa soxnaa nekk fii mu muuri fekk mu muy Aïsa yàlla subhaanahu wa taala wan na ko ko ci ay nelaw te xam ngeen ne géntub wax waxyu la xaay sa ngëneelam yegg na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñi mat ci góor ñi góor ñi ñi ci mat ñu bari lañ waaye jigéen ñi kenn matu ci loolut Asiya jabari firawna ja ak Maryam bintu Imran waaye nag ngëneelul Aïsa ci kaw yeneen jigéen yi dafa mel na ngëneelu soos ci kaw yeneen ñam yi ni soos gën a foore yeneen ñam yi ngëneelu Aïsa ci kaw yeneen jigéen yi noonu la mel Aïsa ngëneelam feeñ na ci fa muy tudd moom ci boppam mu ne yàlla subhaanahu wa taala defal na ma ay ngëneel yu xam ne defalut ko beneen jigéen xanaa ludut Mariam bint Imran bokk na ci ngëneel yooya ne malaaka ñëw na ci sama melokaan bokk na ci ngëneel yooya yonent bi sallallahu alayhi amul senn soxna su mu denc fekk mu nekk jànq bu dul ci Aïsa radiallahu anha bokk na ca ngëneel yooya yonent bi salallahu alayhi wa sallam yàlla def na ma ma nekk doomu xalifa bi ko njëkk a wuutu yonent bi salallahu alayhi wa sallam yàlla defal na ma bi muy faatu boppam mu ngi ci sama dënn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may na ma sama néeg lañu ko sul yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla may na ma wax yu ñëwal ko fekk maag moom ñu ngi bokk sangu ci menn malaan loola ngëneel yooyu bi mu koy wax daf koy wax ak soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne maa koy wax waaye puukare taxut su fekkee puukare taxut lan moo tax waxtaanee xewali boromam na yàlla subhanahu wa taala ne wa amma bi nicmati rabbika fa xaddis Aïcha yonent bi sallallahu am na ci moom cofeel gu xam ne amul keneen kum ko amoon cofeel gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon ci Aïcha soppewu ko woon keneen waxuma benn jigéen de keneen laa wax loolu li koy mooy kàddu amr ibn al aas radiallahu anhu amr ibn al aas mu ne dama ne yonent bi sallallahu alayhi wa nit ñi kan nga ci gën a bëgg nit ñi kan ci gën a bëgg mu ne ne ma Aïcha ma ko góor ñi nag kan nga ci gën a bëgg mu ma baayam kon boobu baat tegtale na mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa gu féete kaw ci Aïsa kaw geneen mbëggeel te ku nekk xam na ne mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ak sunu mbëggeel ñun foo foo fokk ñu taxaw fi mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa du hun mbëggeel gu dellu ci ak nobel comme ñaari baat yooyu bokkuñu nobel ak mbëggeel bokkuñu yonent bi sallallahu alayhi wa mbëggeelam dafay bëgg kemtalaayul xam gi mu xam bëgg gi yàlla bëgg lii yonent bi salaa sallam kaana tayiban wala yuhibu illa tayiba yonent bi nekkoon ku sell ku baax ku xam ne du bëgg lu dul lu sell kon lépp lu mu bëgg lu sell la te seede na ko al tayibaatu lil tayibin wa tayibuuna lil tayibaat bokk na ci luy firndeel loolu mooy ne mbëggeelu yonente bi sallallahu alayhi dafa dem ba lu ñëpp xam la xadis bi Buxaari di nettali danañu ca firndeel suñu Aïsa radiallahu anha di nettali mu ne sama mbokk yi sama àndandoor yi ma bokkaloon ci kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wolof di waxee samay wujj waaye moom waxu doon samay wujji dafa ne samay àndandoor sawaaxibi loolu mooy wax ju tegginu ji euh, dañoo toog ñu ne ñoom seetlu nañu daal nit ñi lépp lu ñuy may yonent bi sallallahu alayhi wa dañ ciy dàkk bis bu sa aaye maanaa tànn fu xolu yonent bi sallallahu alayhi wa gën a sedde ci lañ koy terale luñ koy may si rek dañuy tànn ba Aïsa aaya ñu soog koo yekkal loolu ñu dem ba soxna yi dajee ci loolu ñu ne ñun daal jaadu na ñu wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa yow la ñuy yónni waxal ak yonente nga ne ko na wax ak nit ñi may yiñ koy may te balaañ koy may dara dañuy dàkk ba Aïsa aaya ñu soog di ko may mais nañ ko may ci waxtu wu mu doon ak fu mu doon fu mu fan féete ak waxtu wu mën a doon nañ ko may liñ koy may mais buñ ko dàkk benn barab umu salama xaar ba yonent bi salaa ci moom mu wax ko wax boobu yonent bi salaa noppi waxu ko dara ñaareelu yoon mu aayawaat fa mu wax ko waxu ko dara ñetteelu yoon mu aaya fa mu wax ko lan la ko yont bi tontu yont bi def ko ne umm salama bu ma naqaral ci aïsa amul kenn ci yéen ku xam ne wax yu ñëwal na ma fekk maa ngi nekk moom ci menn malaan bu dul aïsa boobu tànneef tànneefu kan la yàlla subhaanahu wa ndax bu leen fàtte wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا malaaka yi yonent bi saa sallam ba mu ne jibril lu tee nga ñuy siyaare si lu gën a bari li nga ñuy siyaare si yoon yu gën a jegewante yàlla daf ko tontul ci alquran mu ne ko ne ko ñun duñu wàcc lu dul sa ndigalu borom sa borom moom moom ci sunu kanam moom moom li ci sunu kanam moom moom li ci diggante bi te sa borom it fàttewut kon yàlla buy dàkk yonent bi nekk ak Aïcha ci malaan mu yebal jibril mu wàcc ci waxyu gi te defu ko ñeneen ñi wa ma kaana rabbuka nasiya sa borom fàttewut waaye ak tànneef la bi yonent bi tontoo umu salama loolu umu salama ne tuub naa ci yàlla ak yonentam mais wax yonent bi lu koy naqaral gis ngeen ñoom du xolub wujj rek la amoon mais xolub ngëm lañu am su mbir mi delloo ci ngëm ñu delluwaat léegi am na ci beneen jataay bu mu Ahmad nett ci musnadam soxna yi bi ñu waxtaanee yebal umu salama mu wax ak yoontu bi sallallahu alayhi ñetti yoon waaye mbir yi soppeekuwut dañu ne Zeynab bint Jahsh yow yaay dem Zeynabu bintu Jaxs moom ba mu wax ak yonent bi dafa ñàngal ñàngal yëkkati baatam bu baax a baax ndax bu leen fàtte ne doomu bàjjanam la kooke dana ko ñeme loolu lu ko ñeneen ñeme doomu bàjjanam la mu yëkkati kàddum lool lan la ko wax yonent bi ñu ngi lay ñaan ngir yàlla maanaam ni olof di waxe rëttax nañu la paxtab yàlla ci na nga màndu ci doomi Abubakar ji ak ñun waaye jëlewut ca dara bañ yége ne Zeynab bint Jahsh jëlewut ca dara Fatima radiallahu anha doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko ne waxal ji sa baay ne ko ñu ngi koy rëttax paxta yàlla bi na màndu ci doomi Abubakar ji ak ñun bam ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi daf ko ne Fatima ndax yow doo bëgg ku sa baay bëgg mu ne aha kañ bañ ko yebalaatee mu ne duma dem yi yë mbokk yi dafay wane cofeel gu ràññeeku gu yonent bi sallallahu alayhi wa amoon ci Aïcha te loola dara waralu ko lu li ma wax ne yàlla subhanahu wa taala moo am tànneef ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi tànn la yàlla subhanahu wa taala tànn waaye balaa may wéy bañ kenn ci ñun jógee fii dellu ca kër ga ne ah yonent bi kay xàmme woon nañ ko gën a bëgg a Aïsa kon kay man itam bu fekkee ne satu sekk laa gën a bëgg itam kay loolu kay kenn amulum ci wax déet du noonu de du noonu de yonent bi sallallahu alayhi wa am na lu mu daan wax la mu téye yonent bi la mu yor moom ko buy séddale day yemale képp day yemale képp mbëggeel gu nekk ci xol ngir yàlla lii la gën a fonk ma fonke ko feeñut ci séddaleem su yaa Aysa moom ci boppam moo nettali mu ne yonent bi bu daan séddale diggante soxnaam yi dafay séddale mu yem képp mu ne yàlla lii de mooy sama séddale ci li ma moom maa ngi lay ñaan ba ma jàppee li nga xam ne yaa ko moom te moomuma ko mooy la xool bi lii may séddale di joxe yemale gii de nga gis mooy sama séddale win ci li nga xam ne maa ko moom dama koy def mu yem képp waaye yàlla li nga xam ne yaa ko moom te moomu ma ko bu ma ci jàppee xol bi amut benn xol ci xoli jaam yi lu dul mu ngi diggante ñaari baaraam ci baaraami yàlla yi moo koy ëlbati nu mu ko soobee loola yàlla yaa ko moom moomu ma ko bokk na it ci luy ferndeel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam googu ci Aïsa juróolu ko genn jéng ci féewale diggante moog yeneen soxna yi donte yéen a ngi dégg ñële di wax ne yonent bi na màndu suñu diggante loolu waxe jigéen la waaye ñu xool itam gis ngeen yërmande yàlla ci jaamam yi xam ngeen ne ba mu dee ay jigéen ak seeni moroom ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa màndul kàddu googa amul fenn fu mu leen gaañ wala gaañ na leen fenn waaye ba ko benn waaye waxee ci séddaleem asaka yi séddale màng gi ne yonent bi mandul ci say séddale bii séddale waaye am naa feq la loola ak kéeféer la waaye lii moom ci biir kër gi la kon nag mbokk yi borom kër yi nañuy supporté ci seeni kër xam ngeen ni yàlla supporteel na yonent bi ay soxnaam accusé ko mandu te loola defut leen naa feq defut leen yéeféer tik ñeneen keneen dam ko waxee la ko daal def ak yéeféer loolu kon day wane ne boroom kër ci biir njabootum war na yaatu dënn war na yaatu dënn am na lu muy jot ci keneen mu funki ab dëndam mu jot ko ci biir waa këram te mu giifal ko ma bokk na ci liy wari na ci yonent bi sallallahu alayhi meloon ci màndu googu xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi am na soxnaam su xam ne dafa mayoon Aïsa ak aayam bis bi mu njëkk def loolu yonent bi yëgut soxna soo su may na Aïsa ak aayam yonent bi toog Aïsa ñëw toog ci wetam lan la ko yonent bi wax baat bi gëna a bu arab di dàqee moom la jëfandikoo ci moom ilayka an ilayki an ilayki an baat la bu xam ne arab ci dàqu njéppite la koy dàqee ilayki an dàqu njéppite la ko dàq ngir toog gim toog ci wetam ci bis bu dul aayam Aïcha xamal ko ne ko soxna si moom moo ko may aayam loola moo tax mu toog ci wetam yonent bi sallallahu alayhi wasallam soog a bàyyi kon loolu wan nañu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam cofeel gi yàlla la ci moom mu ko waaye duhut daf koo jural ak jeng ci diggante ay soxnaam seelu ngeen ne ak moom ci cofeel mosula tukki tànn ko ne ko kaa ñu dem tukki déedéet saa yu naree tukki dafay bantale diggante soxna yi li ñuy wax tirage au sort ku bantam génn kooka lay ànd tukki waaye mbokk yi danañu gis cërub Aïcha ne benn bis yonent bi salaa dafa ñëw mu ne ko yonent bi maa la seen bi nga taxawee ak Dahiyatu bnu Kalb yi di xeet ibnu kalab yi kenn la ci saxaaba yi ku xam ne jibril daf daan ñëwal yonent bi sallallahu ci melokaanam ba boo ko séene yaakaar ne moom la Aysa mu ne ko séen naa la bi nga taxawee moom yonent salaa sallallahu alayhi wasallam ne ko ah gisoon nga ko mu ne ko waaw mu ne ko déedéet kooku du Dihya de kooku jibril la moo ne mu ngi lay sax de ah. jibril la te itam yaqra'u alayki salaam yaqra'u alayki salaam mun lay nuyu Aïsa mu ne ma ne ko wa alayhi salaam fa innaka ya rasul allah tara ma la nara mu ne ko yonent bi jottalil ma ko nuyoo ndax yow da ngay gis lu ñu dul gis ci beneen jotaay dañoo toog yonent bi mooy gis jibril Aïsa gisut yonent bi ne ko Aïsa jibril a ngi nii de mu ngi lay nuyu mu ne ko nuyul ma ko yow dangay gis lu ñu du gis ñun ba pare teg ca mu ne ah waaye ndaw gan gu baax waaye itam ak a baax ku mu gane waaw gan gu baax waaye itam ak baax ku mu gane kon mbokk amul weerante ne ku malaaka di nuyu yonentub yàlla di ko ko jottali kooka du tuuti fa yàlla subhanahu wa taala mbokk yi ngëneelam yaatu na yaatuwaay bu xam ne kenn xamu ko ku dul ki ko bind waaye na yàlla defe woon ngëneel yu bari yooye ci moom te itam def ko muy soxna yonent bi sallallahu alayhi wa fii ci àdduna ak ci àllaaxira noonu la ko defee woon itam muy ku xër ci jaamu yàlla muy ku xir ci xam-xam waaye it nag mu doon noon baay bu baax a baax ci ràññee ak mën a tontu benn bis ci yoon yooyu ma wax ne Zeynab umm salama ndax Zeynab bint Jaxs ñëw na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa dafa yëkkati baatam wax lu bare baree bari yonent bi sallallahu alayhi noppi rek mu ëlbatiku même tuur Aïsa wax ji Aïsa noppi yonent bi sallallahu léeg-léeg mu xool euh, Aïsa ndax dana tontu maanaam xoolub sañ ngaa tontu ndax dañ laa tooñ waxu ko tontu waaye wan na ko ne boo tontoo duma la sikk dañ laa tooñ ba Aïsa tontoo tontum ya dikk na dikk gu xam ne soxna sare dafa mujj noppi waxatut yonent bi sallallahu ne naka bu doomu Abubakar la de ah. Ah. naka mu doomu Abubakar la de kon loolu dafay wane ni am na lim jëlee ci baayam ca xam-xam nga ak xàmmee fu muy teg kàddu te it xam ngeen ne ci wàllu askan ci Quraysh bal ci arab yi doon nañu wax ne amut ku ci xamee askan ni Abubakar radiallahu anhu ci gannaaw Abubakar xam wàllu askan ci arab yi Aïsa moom moo ko jël ci moom li ma bëgg wax mbokk yi kàddu tey gi dañuy jàpp ne ab laltaay la ci ñu dugg ci dundub suñ yaay jooju nga xam ne naafiq ak nooni lislaam yi lu ñaaw lu nekk taqal nañ ko cib deram lu salte lu nekk taqal nañ ko mbañeel gu nekk ëmbal nañ ko ko waaye amul weerante ne mbëggeel gii ngeen dégg ci Aïsa yonent bi amal ko ko jibril di ñëw ci moom ci ñëwin woowu ci ndigalul yàlla di tegtale mbëggeelug yàlla ci Aïsa la yàlla bëgg yonent bëgg ko ku ca feeñal mbañeel kooka moo yeeyoo muy ku yàlla ak yonentam kooka mooy ku yeeyoo muy ku yàlla ak yonentam bañ te it nag ku yelloo mbañeelug yàlla ak kooka mooy yeeyoo mbañeelug naafiq mbañeelug malaaka yi amul weerante ne képp ku bëgg lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ca mbëggeel gi mu bëgg yonent bi la ko bëggaale képp ku bañ lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg même bu ko waxul même bu woote woo bëgg yonent bi amul werante ne ci mbañ gu mu bañ yonent bi ci la bañaale lu yonent bi bëgg Aïcha bokk na ci li leen yéem mooy fi sunuy jigéen di toll di sëyi moom fa la toll ñàkk jëkkër amaatu ko ba ba muy sàngoo suuf te diggante fim mu ñàkkee jëkkër ak fi muy génn àdduna dem na jege ji na ñaata ñeent fukki at ak juróom wala mu ëpp ko bu leen fàtte ne yonent bi sallallahu mu ngi gaañu ci fukkeelu at ci gàddaay gi da dégg ji incha ne Aïcha mu ngi gaañu ci juróom fukki at ak juróom-ñaar yenn riwaay yi juróom fukki at ak juróom-ñeent ci gàddaay gi kon ñeent fukki at ak juróom-ñaar wala ñeent fukki at ak juróom-ñeent yu xam ne mu ngi ko dund amul jëkkër bi jëkkëram di faatut mu toll ci fukki at ak juróom-ñett dund boobu yëpp ci lan la ko dund mbokk yi ci jàng ak jàngale Aïcha li mu soloo ci xadis musnad Aïsa dem na ci ñaari junne xadis ak lu topp su ma fàttewut ñaari junne xadis ak juróom fukk ak juróom-ñaar du sori foofa ci li mu maanaam su ma nee li mu mokkal ci xadis sax juum na ndax manumaa wax ne la mokkal yëpp la jàngale waaye daal liñ jëlee ci moom ci xadis yegg na foofu mbokk yi kooku bu ñu nee mboolem jigéeni xeet wi moo ci ëpp xam-xam moo ci gën a dégg diina kenn du ko werante te it bari na lu koy firndeel ñu xool léeg-léeg aaya wàcc moom mu gaaral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu déggee aaya booba ba yonent bi saxal ko ci wala jubbantil ko ko ne ko du nii nale la bari na ak jaamu yàlla di dëgmal mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangam ji nuñ ciy def tey jullit di ko xam fekk na Aïsa moo leen ko jëleel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma doon joxe misaal laylatul qadr ñaan gu ñu jagleel laylatul qadr xamee wuñu ko lu dul ci laajub Aïsa ba mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa su ma demoon ba xam ne guddi gi mooy laylatul qadar lan laa fa war a ñaan mu ne ko nel allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni yàlla yaay jéggalaakoon bi yaay ku bëgg njéggal yàlla nag mu jéggal mbokk yi yàlla la ñuy ñaan mu warsagal ñu dundin wu mel na dundinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i sahaabam doonte yegguñ ca ciblim mu warsagal ñu ci nganeelam ñu dëkk ak ñoom ca këru teraangaam amaan na bu ñu yàlla mayee ba beneen aljuma incha allah danañu wéy ak yéen ci waxtaanee suñ yaay ji yaakaar naa ne nit doom doom ju baax du yokkat ci déglu ñuy waxtaane yaayam ma doom ju baax du yokkat ci di déglu ñuy waxtaane yaayam yàlla nañu yàlla warsagal yaay yu baax ak yaayi doom yu baax wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi